bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ngi leen di nuyu dafa seey di ko yéen ci suñ bind bi ñuy am ci téere bii di ad-duruus ñu toll ci suñ bindub juróom ñaareel ci téere bi Euh, mu jëm ci alxuslu te mooy sangu cangaayal farata mu ne maa huwa ana lan mooy alxuslu sangu bu dee sangu ci lislaam lan lañ ci jublu maa huwa ana lan mooy sangu tontu bi mooy alxuslu sangu ibaaratun waxiin la woo xam ne mu ngi jëm ci xan xasli jamiil badani ci raxas mboolem saw yaram bilma i ci ndox buñ ne sangu cangaayal farata mooy nga raxas mboolem saw yaram ci ndox moo xam ne ndoxum kese la mu ànd ak yéene nag loolu lañ jublu ci sangu maa hiya faraidul xusli sangu moomu ana lan mooy ay farataam faraidul idul arbaatun faratay sango ñent la ba ca an niyatu yene ba ca top al fawru gaaw bu ñe gaaw nak moy ciir bo raxas la muy fenn nga raxas ba ca top loolu ñu jublu ci gaaw jublu wuñ ci parax parax bob moy bu ñaarel bi bu bi adal moy rag li jamiil badan ñeel mbolam yaram wi moy bu ñetteel bi bu ñeenteel bi takhlilu jamii shaari rasi wal lihya Khalil, mboolem kawaruk bob bi aw kawaru sikkin bi khalil mboolem kawaru bob bi ak kawaru sikkin bi kon ñent yi farata faratay sangu Yene, gaaw rag mboolem yaram bi khalil mboolem kawar gi Kawar babbi ak kawarug sikkim hiya sunanul ghusli ana lan moy sunnay changay sunanul ghusli sunnay changay batay arba'atun nient la al madmadatu galahndiku mo ci njëkk ghaslul yadayni rahas ñaari loxaya ya lil kuwayni ba ci tik jaraya muy ñaar kañ ngay def loolu mu ne fi butidaa il xusli fi ngay ca cangaay li foofu ngay raxas sa ñaari loxo ba ci tikk jara yi walistinshaqu ak sarax te mooy nga xëcc ndox mi ci sa bakkan mu dugg ci biir nga dellu ko mu génn wa masxu suqbil ak masa bën bënu ñaari nopp yi kon ñeent yooyu ñooy sunnay sangu al madmadatu galax muy benn ghaslul yadayni lil ku'ayni rahas ñaari loxoy ba ci tik jaray ya fi butidaa il xusli fi ngay tambale ci ngay li wal istinsaaqu ak sarahndiku wa mashu suqbil uthnayni ak masa ban banu ñaari nopp yi loolu moy sunnay sangu farata ma hiya mustahabbatul xusli ana yan moy yi ñu sopp ci ngayal farata ana lan moy liñu sopp ci cangaayal farata mustahabbatul xusli yiñu sopp ci cangaayal farata sab'atun jurom ñaar la ba ci ñëk albadu bad'u tambuli bi xasli ma bi jasadihi minan najasa. rahas mboolem li nak ci aw yaramam ci sobe manam fépp fu ko sobe tak rek mu rahas ko bam set lolu sopp la mu ko ñaareel ba atasmiyatu wax bismillah bala muy ca Nyatelba li ñettel ba taslisu ghasli rasi ñett ñett raxasu bobba manam maanaam bu dee raxas bopp ba mu ndox sot ci ba muy yoon lolou dañ ko sop ndax bu toyon ci benn bu njëkk bi rek su bobba bu bàyyee nonu baxna waye nak def ko ba muy yoon dañ ko sop taqdimu a'da'il wudu'i jital ciri yi masalan bu dee sangu mu def njàppum benn benn ba pare door ñëw ci càngaay li loolu mooy jiital cëri njàpp yi loolu dañ koo sopp at taqliilu néewal minal maa yi ca ndox ma maanaam néewal ndox mi bañ koo bari lool waaye nag ndox moomu limité wuñ ko néewuñu nangam lay toll kenn ku nekk ak lala mën a sang rek waaye dal fen nga fexe ba bul yàq ndox boo dee sangu bul yàq ndox loolu dañ koo sopp albadu u tàmbulee bi alal badan ca la gën a kawete yaram wa wàcc jëm suuf masalan kii sangu dañuy sopp mu jiital bopp bi teg ci nopp yi teg ci loos wi teg ci mbagg yi wàcc jëm suuf loolu mooy tàmbulee ca la gën a kawete yaram wa ba tey sopp nañu albadu u bil ni tàmbulee ca ndeyjoor ya ci mboolem cër boo xam ne dafa am ndeyjoor ak càmmooñ bu dee nopp yi am na ndeyjoor ak càmmooñ kon day ñëkk noppam ndeyjoor bu dee loxo yee am na ndeyjoor ak càmmoñ kon day njëkk loxoom ndeyjoor wet yaram wi yépp day jiital wetu ndeyjoor gi tànk yi day jëkk tànkum ndeyjoor kon lépp lu muy def na jiital ndeyjoor ci càmmoñ loolu mooy albadu bil mayaamini muy tàmbalee ca ndeyjoor ya doole ñëw ci càmmoñ yi maa huwa atayammumu ana lan mooy tiim atayammumu tiim huwa moom masxu wajhi mooy masxul wajhi mooy masaa kanam wal yadayni ak ñaari loxo lil mirfaqayni ba ca ñaari conca ya bi turaabin ci suuf taahirin su laab badalan mu remplacé ko anil wudu'i ci njàpp awil xusli wala sangu masalan ki nga xam ne sangu daf ko war wala jàpp war ko ndax amatug laab te am na ngant ci jëfandikoo ndox benn daf koo amut wala yaram wi moo ko mënta jëfandikoo su boobaa day dem ci tiim tiim boobee mooy remplacer eh, njàpp mi wala cangaay li nam koy defee nag mooy day dóor ñaari loxoom ci suuf daal di koy fëgg daal di masaa kanamam masaa ñaari loxoom ba ci ay tikk jaramam su boobaa loola mooy tiim ba mat na kon tim atayammumu tim, huwa mom mashul wajhi moy masakanam, wal yadayni ak ñaari loxo lil mirfaqayni ba ci conce ya. amma wax yi borom tire di wax na dañ koy ba ci conce ya nak lolu xayna lañu sopp la rek waye bu yeme ci tik jare rek baxna mu def ko nak bi turabin tahirin ti sulab badalan anil wudui mo remplacer ko njap awil kosli wala changay ma hiya mujibatu tayammumi ana yan mooy yiy waral tiim nag lan mooy tax nit ki war a tiim moojibaatu tayammumi yiy waral tiim salaasatu ñett la ba ci njëkk faqdul maa yi ñàkk am ndox su waxtu julli jotee te amoo ndox moo jàppe wala amoo ndox moo sa su booba dangay tiim muy benn ñaar alxawfu min wuquuci maradin nga ragal ne boo jëfandikoo ndox mi feebar mën na la caa fekk wala sax da nga feeru mënu koo jëfëndiko su boobaa it da ngay dem ci tim ñettal ba khawfu khurujil waqti am nga ndox wër nga yit waye bo démé di japp wala nga dem di sangu manam bala nga nopi waxtu bi jeex xeyna da nga nekkon ci nelaw bi nga yewo fek nga waxtu wi toll fa wala sangu xajatu fa su baba da ngay tim kon lolu moy yi waral tim maa hiya faraidu tayammumi ana lan mooy faratay tiim faraidu tayammumi faratay tiim samaniyatun juróom-ñett la neetu istibaaxati salaati yéene dagan lu julli xam nga ne julli ci lu dul ak laab dañ koo tere kon ki war a sang war a mu war a jàpp te mënu ko ndax amut ndox ndax wala dafa wéradi su boobaa balaa muy julli day tiim bu dee tiim nag day yéene daganal julli ki ci mom ci tim boobu muy tim loolu moy ben farata bi ñaar asaidu pak ataahiru bu lab, te moy fami timé fami dor loxom mu nek pak bo xamné bu lab la adar ci farata yi la bok ñettel ba ad-darbatu al ula dóorin bu ñëk bi dor gi mi dor loxom ci suuf bu dé tim dor bu ñëk bobu farata la ñentel ba mashul wajhi masaa kanamam bu dóoree loxam ci suuf bu fëggee ko da koy masaa ci kanamam juróomeel ba mashul yadaini lil ku'aini mu masaa ñaar loxam ba ci ñaari tik jarom lolu farata la juróom benneel bi fawru moy gaaw gaaw gi nak comme niñ ko waxe won moy cieur bo def rek def ci ba ca top tam baña am dog-dog djublu jubluwuñ ci parax-parax bob moy juróom benneel bi juróom ñaareel bi du xoolu waqti salaati tabbik waxtu julli gi ci masab malik dañuy bëgg bala ngay tiim nga bàyyi ba waxtu julli yu jot juróom ñetteel bi ittisaalu salaati bihi jokkale tiim bi ak julli gi jokkale tiim bi ak julli gi dañuy bañ nga tiim toog lu yàgg door a julli loolu lépp ba tey ci masab malik la tanbihun lii ak yeeta la mu ne laa yu sallaa deeful julli bi tayammumi ci tiim illaa fardun waahidun ndera benn farata mu ne wa sunnatu sunna init tasalat wa sunnatu ak sunna init tasalat ndeem jokkude bi ci moom wa kazalika naka noonu an nawaafilu naafile yi daf laa bëgg a wax ne mazhab Malik dafay tere benn tiim nga julli ci ñaari farata maanaam nga tiim julli tisbaar nga dem ba takkusaan dara lu yàq tiim bi jaaru fi téewut ñoom dañuy bëgg nga tiimaat donte li gën a wér nag mooy boo tiimee julli ci takkusaan li fekk defoo fi lu yàq ab tiim wala nga am am ndox su fekkee da nga ñàkkoon wala nga wér su fekkee da wér di woon su yooyu dara amu ci te it defoo fi lu yàq am njàpp su boobaa mën ngaa julliwaat ca tiim ba waaye nag masab Maalik moom loolu gisewu ko noonu moom day wax ne benn tiim kenn lu ci julli ñaari farata benn farata nga ci man a julli waaye nag sunna soo xam ne daf caa jokk mën nga ko caa teg te doo tiimaat masalan julli nga géyaa ba noppi ci tiim soo fekkente ne nga ca daal jokk eh, safa ak witar soxlawul ngay tiimaat mën ngaa jóg nga def safa witar naka noonu it julli nga tisbaar ci ab tiim bëgg ngaa defaat ay naafi la mën nga ko caa def ci loolu ngay tiimaat lu dul loolu nag masab Maalik moom daf koy tere maa hiya mustahabaatu tayammumi ana lan mooy li ñu sopp ci tiim nag mu ne mustahabaatu tayammumi yi ñu sopp ci tiim salaasatu ñett la at tasmiyatu wax bismillah bala ngay tàmbali taqdiimu yadil yumna jiital loxob ndeyjoor alal yusra ci càmmoñ naka noonu naka noonu taqdimul ala nga jiital la féete kaw alal asfal ci la féete suuf boo dee masaa kanam gi nga tàmbalee ci jëba waa ci jëm suuf ba dee masaa say loxo it nga tàmbalee ci cati baaraam yi jëm suuf maanaam daal jiital la féete kaw ca la suuf maa hiya nawaaqidu tayammumi ana lan mooy nag li yàq nag tiim maanaam nit ki bu tiimee ba noppi ana lan mooy li nga xam ne boo ko gaaree daa war a tiimaat mu ne nawaaqidu tayammumi yi yàq ab tiim xii ñoom nawaaqidul wudoo i mooy li yàqum jàpp rek mboolem liñ la waxoon ca njàpp mën na daf ko yàq boo tiimee yi daf ko yàq ñu dolli ci nag benn mooy wa wujudu maa i amam ndox xabla du xoolil waqti nga tiim ba noppi fekk ñàkk ndox moo taxoon a tiim nga far am ndox te waxtu wi duggoogut su fekkente ne ida kaan nekk na al waqtu waxtu wa muttasian di aji yaatu mu nekk waxtu wu yaatu yaatu kon soo amee ndox tiim ba day yàqu هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين